mbokki Thiès mbokki Kajoor ah dama ni seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru cal Joob ngir am kër gu rafet dama la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Daaru Minaan dama la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax ah kay da ngay samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Daaru Minaan Diagne et frère andil nañ la bu baax tabax la am ci wàllu plomberie nag moo fi toog ay matériel de toute nouvelle génération mani la électricien yi moom dañu faa sax abonné ndax li ci xeeti lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci wàllum électricité محمد المصطفى si musidun ulimat ay man li may wax ndax loolu la balaa parce que man doomu sëriñ Moustapha bi du ma tëj min kay milizat wasasam Cabral moo tere nelaw suma lewale kaasis moo demee noon Cabral moo tere nelaw suma lewale kaasis moo demee noon suma lewale aywa suma lewale ay lala c' est pas comme ça c' est nous les soldats suñu waay dafa war a dëgër aywa lañu wax aywa su ma lee woolee aywa su ma lee woolee aywa saa yoo eh. ba ba ñu ba pare parce que lii xam naa ne su ma ko waxee wari. yooyu lan ngay def fii yow Damel lan ngay def fii waxuma woon sama kër bu fi tegati sa tànk waxuma la teel sa tànk sama kër sekkatuma ak yow dara bu fi ñëwati wax naa la ko maintes fois bul ñëwati sama kër parce que déjà bëgguma la gis bul ñëwati sama kër ah. dal dal. daluma du yow yaa may wax su dal. wuy ma euh, bu yeboo nga dem xoolal cour de la Haye fii dama fiy ñëw téye ma femme sama jabar nga. Hmm. voilà dama fi ñëw par force yow yaa <laughs> xam nga ni yow nga ni. man musuma laa fase. ah musoo maa fase. déglu ma expliqué la rek. musoo maa fase. keroog bi ma la koy wax ànduma ak sama sago dafa fekkoon ma mandi Fatou xoolal damel bu njëkk ba ak damel bu tey yow boo xoolee xam ne ci li ma nekkoon génn naa ci et yow tu sais très bien que man yow laa bëgg. sunu way du ay way foo way bu dëgër lay doon seen way yéen moom mooy moom mooy yolam yi yéen way muy nooy euh, euh, muy am ay ndeysaan. non man du ma civil boutiquier la ah yow boutiquier nga. Ah, euh, par rapport à propos de boutiquier bi. moo ko dama soxla woon euh, warga. ak suukar. suukar euh, ak boisson. ak boisson ñaari bouteille. ak meew lagle. ah soxla naa si ustam benn carton. carton benn. Ah, benn d'ici fii ak ay quelques jours naa la andilaa sa xaalis ay quelques jour rek mu andila sa xaalis. man bëggatuma la yow ba nga feree ci sa ndey ba léegi yaa ngi mànd doo mës a jóge ci màndi yaa ngi dégg nga ne la mosoo maa fase yàq nga ko yàq nga ko instant yi maa ngi farantu def lu ma sa fàtte naa la yàgg na damaa bëgg nga bàyyi ma yow damel li ma sekk yow li ma dund ak yow yow ku ma fekkaan may dund ak yow lan la may wax lan may wax li ma def ci kër àdduna yëpp da nga koo la ko wax bàyyiwuma la tey bàyyiwuma la ëllëg. ah bon bu ma jege bu ma jege. bu ma jege nag laa la wax. waaw kay. bëgg. bàyyi ma nga dellu si kër gi. Hmm. moo caporal. ku la bëgg laa. moo caporal. ku la respecté laa. moo caporal. loo bëgg dama koy def. xool nga boutique bi moo caporal. xool ko nga boutique bi nu mu yaraaxee xool nga boutique bi nu mu xooyee xool nga boutique bi nu mu nu mu xool nga boutique bi nu mu silence yowee bi ndax gis nga fi laajlee kon xam nga dara amatu fi lépp ngir sa jëmm ji loo bëgg dama la koy jox loo soxla boo ne waaw ma ne wii kon xam nga ne man dama am sa yërmande gis nga kay bi nga gis nii. door kese la ñu fayagul ñoo fi ne. dama a sama kër. dellu suñu kër gi. génnal sama kër eh, xool ma doon eh, ma eh, sama kër. fàttali lii laa lay def. yaa ngi nekk deng génnal sama kër ci biir laa te bu fi ñëwati dama seet. yow yaa ngi yow. parce que boo fi ñëwatee dinaa la teg groupe boo xam ne doo gis. ay waay ay waay ay waay dammel la dammel ngir yàlla ak yonent bi xanaa amoo kër ndey amoo kër yow xanaa yow yow nit bu la bàyyee sax ngir yàlla yoon te nga jéem kaa baax am jom yow lan la fii amatoo fi jabar yow nga tekkoon Fatou Kiné nga ko doon labat laabaan ko yóbbu ko sa kër ma joxoon la jabar joxoon la xale bu nooy nëpp rafet lool jekk taaru nga jàpp ko di ko wuli wuli nëpp fase ko sa ba ñëw nag ne ma osé ne ma fase naa koy fase aw amoon ay seet père suma ko fase keroog bi ma koy fase andumul ak sama sago dama mandi woon a ah, da ngaa mandi woon fii nag danga fay fekk ñi la gën a mandi ñoo xamante ne dañuy naan bëri ko bëri ko sàngara la naan di tox saako fii ay waga nga fi fekk génnal kër gi si nag wax ji bala moo guddog di gàtt génnal si nga may ma loolu laa bëgg génnal yow ama génn yow génnal si biti Maguette Diop dix mille Oumou Malick Diouf ca Djolof pardon pardon pardon silence s'il vous plaît euh, ñu ko ba jaar sama kanam daf laa ndróog ku ñàkk fayda ah, dama laa ndróog ku tekkiwul dara ci réew mi est-ce que xam nga lan moo tax ma def nii sama technique tout pour jubalee entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. loolu sama yoon ne kon man su ma doxee boo jubal leen ñoom ñaar nga war a xam ne man dara laa ci réew mi. ma ne loolu sama yoon ne aussi. kon yow waroo maa mën a jaaxal. dell na affaire laa lay xamal. mën nga ma jox nga jox ma nga nekk ci tranquille mënoo ma jox takkala lam yi laay def. kooku doo la biir brigade bi man it kooku doo ko ma jox. yow policier dong nga mais man civil xam sama bopp la civil bu doy war la xam li ma bëgg ak li ma bañ. d'accord looy bandi bandi lu maa la ko gën a bandi. tu sais bel et bien que ne yow li ngay jaay lépp ay fraude la. fraude man mi. yow xam nga ne li ngay jaay lépp dafa périmé. ma ne xanaa yow d'accord comme que man xamoo man lan laa doon man xam naa la laa doon li ma la wax nag na nga ko gëm bu baax tey ngay noppee nelaw sinon lu ko mooy di gën na ndaw mooy dinaa la takkal lami dugal la biir biir gànn bi leen nag dinaa ko xamal ma Cabral bëgg naa la lool lool lool lool lool mais gis nga boutique bii nii su yéegee yow la su wàccee yow la bu xooyee yow la bu amee yaram ci yow la lii ma lay jox nii dinaa la ko jox nag mais moom lay sàccee boutique bi dimbale ma ci rek bu mu yàgg dee ba ni coow laay dégg de. fii amoo fi jabar ci biti. waxal te sa laal. billaay boo amee fii amoo fi jabar génnal ci biti laa la wax. ngay wax da man sama jabar ci biir kër gi. fii amoo fi jabar. da nga jabar bu yàgg waaye fii ñàkk jabar ci sama jabar musuma ko fase bi ma koy wax damaa ci situation damaa màndi woon. woon ñun nag fekk fi ñu la gën a màndi. man mi xamante ne bërigo laay naan di nga teg damay naan bërigo te du ma def kelenga maa ngi dem maa ngi ñëwaat. génnal si biti a ba bëgg a dee. ba li ma la mën a gën yàlla su ma ko joxee ne ma ko jox de ndax lii laay starté boutique bi fi nga boutique bi nii amatul dara dama laan droog man koo xamante ne bii dafa ñàkk fari ci réew. tout ça ça. doon moo kàpp laa ceeb lii pour la la lii pour yow la. lii la da laaj li ma la wax non non damaa bëgg nga dem jëndi parce que li ngay laaj amu fi boutique bi nii fi doo nga fi des. violet kese kese kese moo fi des te yéen ñii loo bëgg a jënd nga jënd ko mais soo paree nag ma ko delloowaat d'accord mu ngi noonu <laughs> am nga sens yow sens moom lay gunge. ah sens moom yow sens moo lay gunge laa la wax. ah sens moo lay ko am nga sens nga. ah boobu man da moo ma ne nit ko am wërsëg nga. ah d'accord c'est à de ça. d'accord am jàmm. non mais yow kii policier la wala kii dañuy agent corrompillage la wala ba pare ñoom dañuy dem ñawlu fee si teer yi dem ci Baye Diouf mu ñawal leen yére ñu sol ko ñëw di fen naan man je suis caporal je suis alors que c'est rien c'est du foutage